di fas yéene fàttalante ak yéen rek tomb boo xam ne ci jamonoom lañ nekk muy li ñu tudde zakatul fitr te mooy asakay murum koor xam ngeen ne ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci ramadan di fukki fan yi gën a màgg ndax ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne dee leen ci dàkk laylatul xadar te di ko dàkk ci guddi yu tool yi moom ci boppam daana yeewu jóg yee waa këram ngir lan ngir ñu dundal fukki guddi yu mujj yooyu bokk ci ramadaan kon loolu lu mata bàyyi xel la fukki guddi la yoo xam ne yu mata bàyyi xel la li war sabab nag ñu gën koo fonk mooy liñ ci wax mooy bu jeexee dafa am lu ci war muy asakay murum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo farataal ci jullit ñi moo xam góor la walla muy jigéen wala mag la walla ndaw la walla gor la wala ab jaam kum ci mën a doon rek xadiis bi moom dafa ñëw farataal ko ci kawam mu nekk saa ñu di ko génne ci li ëpp ci dundub la dëkk booba di dunde kon waaye ab jullit lay war nit ki bu nekkul jullit rek manees na ne asaka jooju du ko war muy murum koor moom kon faawu day nekkub jullit bu xasee nekkub jullit nag moom takkatuñ ca ndax gor la wala ndax jaam la ba gor di am ak ak bi di am waaye tëkkatuñ ci ndax mag la walla gone la tëkkatuñ ci ndax góor la wala jigéen la dañ koy waral ci kawam rek moom la wax ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakatul fitri saan min tamrin aw saan min shairin ala al abdi wal xurri wal zakari wal unsa wal zaxiri wal kabiri min al kon xadis bi tënk na mboolem kuy julli rek boo ko xësee am rek daf lay war nga génne ko boo ko defut ñu teg gàll bakar ci sa kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ñu di ko génne laata ñuy julli ji bala ñoo dem ci jullikaayu ayit ba nim ñëwee ci saxiixul buxaari yi wa amara biha an tu adda xabla xuruji ila solaa ba tey li koy firndeel mooy xadiisu ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sakaatul waaye nag muy muurum koor mu ne lu tax mu farataal ko mu ne dafa am ñaari xikma yu ci ne ba ci njëkk mooy laabal nit ki ci bàkkaar bu ñaareel bi mooy dimbule miskin bi wala faqir bi mu mën a lekk mën a dund ci bis bi moo tax mu ne tuhratun li saim day laabal ki woor ci ay bàkkaar minal laxwi wa rafas ci mboolem luy caaxaan ak mboolem luy fo waaye nag mu nekk tuxmatan li masa lil masaakiin mu nekk ab dund boo xam ne ñi ñàkk di miskin yi danañ ko mën a jëfandikoo lii firndeel loolu mooy dafa ne faman addaaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula koo xam ne génn na ko njëkk muy julli ji ayib kooku am na asakay murum koor waaye nag wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatun min as sadaqat koo xam ne nag bi mu koy génne daa julli ba ñëw door di ko génne kon waxtoom weesu na bu boobaa yoolu sarax rekk lay am waaye du am nag muurum koor ak liñ ci dige kon loolu mooy tënk googu ñu ne dañ koy génne ci li ëpp ci li waa dëkk ba di dunde waaye nag mu nekk saa saa mooy arbaatu am daat ñeenti mudd yoonu saa sallam la ko moom la ko daa natte muy ñeenti loxoom lay lay lay def nii te du ko ngëpp du ko tàllal ba mu tàlli da koy lunkal rek bam bam bam bam maase ba mëkk li ñu tuddee barti loxo ci wolof ci ñi ko xam kon noonu la koy natte waaye nag mu nekk koo xam ne ay loxo rëyut ba ëpp waaye ndawut ba ëpp su ko nattee ba noppi nag ñeent la ciy natt ñeent yooyu mooy mooy benn mooy benn bopp maanaam moom moom moom lay génne bu yoree ñaari soxna moom la leen di génneel bu yoree ñett soxna noonu bu yoree ak njaboot njaboot gu ne ñeenti barti loxo la koy génneel donte am na ay nattukaay yoo xam ne yelloon nañu tisaare ko ci koñ yëpp imaam yëpp yor ko donte xañ na farluwuñ ci fànn googu ndax dafay lu mënta ñàkk mu ne nag bu koy génne da koy génne ci li ëpp ci dundub dëkk bi maanaam dëkk ba nga dëkk lañuy ñuy dunde la ca ëpp moo nga koy génnee bu dee ñoom dugub lañuy dunde ay baykat lañ danga koy génne ci dugub ndax bu dee cereeg laax la ñu lekk ca loola nga koy nga koy génnee bu dee comme fii nag nga xam ne euh, li ëpp ci li ñu dunde moom ceeb la bu boobaa ci ceeb nga koy génne te mooy ñeenti bart loxo euh, su fekkee ne nag euh, dafay ñoo xam ne lañuy ñuy dunde maanaam yemawuñ léeg-léeg ñu dunde ceeb léeg-léeg ñu dunde dugub nga xam ne amuñu benn dund bu fix lu demee ni yeneen réew yi nga xam ne amuñu dund bu fixe nga xam ne euh, yemuñu fenn daal léeg-léeg lii léeg-léeg léeg-léeg lii nga xam ne pat lañuy dund dundee ci aju ci gàttal daal bépp dëkk boo xam ne amuñu benn dund buñ fixé moom bu boobaa day xool ba gën bu dee léeg-léeg ñu dundee léeg-léeg ñu dundee yi dañuy xool ba ca gën a kawe ñu génne ko ca bu boobaa nag boo ko génnee ca ba gën a suufee du baax comme ñun tey jii boo ko génnewoon ci dugub du doy faawu ci ceeb nga koy génne xanaa lu dul ba dem ba amoo njëgu ceeb te am njëgu dugub kon bu boobaa loolu lay doy kon lislaam moom looy sarxe-sarxe ak looy joxe-joxe day bëgg nga joxe la gën bañ a joxe la la gën a yées du la lor nag waaye du bëgg nga lor ki ngay jox donte sax danga koy sarax rek euh, kon loolu mooy asaka di murum asakay murum koor kon wax nañ ne yàlla da cee jublu yén sa sallam dafa wax ne suñu borom daf cee jublu ngir laabal nit ki waaye jublu ci ngir dimbale ki ñàkk nga xam ne ak njabootam amuñu luñ lekk mu war a xëy ci bisu ayit bi ay dëkkandoom di di di togg di soppi seenu seen seen cin moom muy lekk lam daa lekk moo ko njabootam loola nag ngir nga sowee ko ci faawu nga génne dara jox ko ko ñu ne dañ koy génne li ëpp ci dundu dëkk ba waaye nag boroom xam-xam yi ne ndax sañees na koo génne ci xaalis wala déet ñu ne ak wuute am na ci gu yaatoo yaatu ñenn ñi ne sañeesu ko te mooy ñi ëpp dañ ne sañeesu koo génne ci lu dul xaalis ndax loolu la yonte bi waxoon te ba mu koy wax xaalis amoon na wurus amoon na kon deesu ko sañ ba ci waa Màkka loolu lañ ubbee bu dee fii ci sunu réew mi nag li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ubbee dañuy wax ne sañees na koo génne ci xaalis ndax dëgg la ceeb a ëpp ci li ñu dunde waaye bis boobu kenn dundewul ceeb te nit ki boo ko joxee ceebu kese day dem jaayi ko loola lor lay doon te mën naa bañ a gis sax kum ko jaay ceebu kese nag mëneesu koo togg xanaa dana jëndi ak ndawal ngir soppi cinam ngir bis bi iid la muy iidul fitr wala dana wuti am dugg te am ndugg ab xaalis lay jar kon nag ngir nga koy joxub ceeb di ko fa jal day mel ni jox ko xaalis mooy gën a yell mooy gën a yey boroom xam-xam ne nag arbaatu am daat muy li ñu tudde saa nan lay tollool buñ ko doon natt ci ay kilo wuute nañ ci am na ñu ne 2 kilo la am ñu ko yóbbu ba 3 waaye nag li gën a digg doomu mooy ñaar yu tegal genn wàll ñaari kilo genn wàll ndax ñi ko ñi ko ëppale ñaar sax xaj na dañoo sukkandiku ci ne ñaari kilo moo gën a yey maanaam ñaari def lu ëpp moo gën def lu yées waaye nag mm, comme ñeenti mudd nii naka lay mën a ëppee ñaari kilo sax jaaxal nañu baree bari ci ñi nga xam ne natt nañ ko ci seeni yi bopp essin ko peese ko euh, ñeenti barti loxo naka lay ëppee ñaari kilo moom jaaxal na leen waaye nag kom ngir bañ a def li gën a bëgg a def la gën a léemtu la ëpp moo tax ñu ne ñaari kilo ak liibar boo ko doon xayma ci xaalis nag day mel ni 750 lay doon ndax kilo 300 750 lay doon bu dee da nga koy xayma ci ceeb bi gën a seer it ca ca la gëne waaye daal en tout nekk ceeb rek ndax mooy ëpp ci li ñu dundee boo ko xaymaa ci ceeb daal doy na bu la neexee nag nga xool ceeb ceeb ceeb bu la neex ba gën a seer moo gën nga xayma ko ci nga jox ko xaalis ba ndax tey ji bu dee ku njaboota mu génneel ko waa këram génneel ko ay soxnaam ñépp jox ko kenn nit lu mu néew dana ci mën a jëfandikoo ci bis boobu te loola taw tawféex la waaye nag ndimbal la ndimbal la mooy gën nga jox ko ceebu kese bi mu teg ko fa wala mu dem di ko jaay ci prix bu gën a yées bañ ko jëndee woon loola nag du xikma waaw du ak xereñ kon la gën mooy au lieu nga koy jox mu koy jaay wala nga di ko jox mu ko fa mu di ko fay stocké du ko mën a jariñoo ci bis boobu nga jox ko ak njabootam du ñu bég ca bis boobee day mel ni nga xayma xaalis ba jox ko ko mu soppi ci nam mën a bégal ak njabootam bégal boppam day mel ni mooy mooy gën a yell mu teg ndax sañees na koo génne lu jiitu bis bi ah kay sañees na koo génne lu jiitu bisu ayit bi ñëw na ci xadis boo xam ne saxaaba yi wax ne yonent sallam daanañu daanañ ko génne ñun lu jiitu bisu bisu ayit maanaam benn bis wala ñaari bis ci misaal quartier bi nga nekk bu dee dafee am ko yitte te am nga koo ko mën a jox ku dëkk ci beneen quartier te mënoo xëy suba jox ko ko julli ji man nga koo jox bu ñu nee suba la julli waaw ba ci sax bu dee réew ma nga nekk ay jullit bariwuñ fa wala bu buñ fa baree ña fa nekk ñëpp yittewuñ ko ndax da ngeen faa daje di liggéey nga war koo yónnee dëkk bi réew mi nga dëkk muy Sénégal am nga droit yónnee ko te léegi moom jàppandi na ci transfert yi mën ngaa ne bañ ne suba la nga yónnee ko ñu joxeel la ko. képp koo xam ne ci sa njaboot la ak fu mën a nekk te mu wóor ne la ka ko fa yor du ko ko génneel moo xam ne ca daara ja la ñëpp da leen ko war a génneel waaw bul ne néew mu ngi ca daara ja rek déedéet ni nga ko génneelee ñi nga xam ne ñi ci kër gi kon looloot mat a bàyyi xel la mu mel ni lu yaatoo yaatu loo xam ne daal euh, boroom xam yi indi nañ ci ay teqale yu baree bari kon daal ci tënk mooy farata joo xam ne nit ku nekk war na koo def yitte ndax laabal gi mi laabal ay bakkaaram ñaareel bi mooy ndimbal li muy def dimbale ki nga xam ne dafa ñàkk ngir lan ngir mu mën a bég bégal ak njabootam waaye nag mu génne ko ci niñ ko waxee ci saa te ñu wax ne bu dee ci ceeb ñaari kilo liibar lay doon dëkk bu mën a doon nag mën na koo génnee ca la gën a not ca la waa dëkk bay dunde ca dëkk bay dunde bu fekkee ne dañuy dunde ñaar yu wuute da koy génne ca la gën a rëy maanaam la gën a kawe bu fekkee ne dañuy dunde ñaar yoo xam ne yu wuute la na ko génne ca dund ba gën a kawe te bañ koo génne ca ba gën a yées kon daal jàpp nañ ne bu ko defee nii euh, dana doy sëkk Euh, yaa koy génneel daal mbooleem ñi nga xam ne yaa leen war a dundal waaye nag doo ko génne ba noppi di leen ko joxaat ñi nga war a dundal moom boo ko génnelee mudd maanaam bopp bu ne 750 ñaari bopp yu ne 1500 ndax boo ko xaymaa noonu lay tollool ci xaalis kon ci gàttal noonu lañ koy génnee boo ko génnee nag nga dem xool ko ko yeyoo nga jox ko ko kooka moom it nag bu baree ci ay loxoom ñu di ko ko jox di ko jox ba mu génne li mu war a dunde ci bis bi ba desal xaalis lu mën a génneel boppam na génneel boppam bu desalee lu mën a génneel ak njabootam na génneel ak njabootam te xam ne war na ko kañ lay war nag foofu lañuy ñuy daaneele boroom xam-xam yi wuute nañ ci ñii dañ ne ba fajar ñii ne gannaaw timis ñii ne gannaaw timis nag lay ware danañ ci dégg ne kon ki julli ci ki ki ki maanaam ki ki juddu ki yeex a juddu moom du ko war ndax bi mu juddu fekk na mu war ba pare fekk ko muy dund fekk ko muy dund waaye nag bu fi faatoo dana ko dana ko war ndax bi muy faatu fekkoon na mu war ko kon loolu mooy wuuteeg ñi ne fajar la ak ñi timis la ndax bu dee ñi ne fajar la moom mooy mooy moom ki faatu du ko war ki faatu avant fajar du ko war bu dee ñi ne timis nag ki faatu avant fajar dana ko war ndax bi muy war fekk na ko muy dund ñee nag bi muy war fekk ko mu dund ndax fajar fekk na mu faatu ba pare waaw kon loolu ak teqale la doonte bariwul solo waaye daal lu mat a bàyyi xel la mooy ñu xam ne dafa am waxtu am jamono nit ki nag li gën mooy mu génne ko wala sax loolu mooy waxtoom da koy génne laata muy julli ji bu jullijee ba ñëw door di ko génne te amoon na ko ndax waroon na ko te waxtoom a ngi noonu bala muy julli ji wala lu jiitu bis bi bu ko defu day am bàkkaar te du tee mu war ko ba tey bor lañ koy jàppee bu dee dafa amut dara nag nga xam ne amut ba julli ji ba ñëw moom waratu ko bu yaakaaree ne bu lebee dana mën a fay dégg nañ ko xaalis boo xam ne la 5 la ci war a jot wala ginnaaw suba la ci war a jot na leb génne ko ngir am ba joojee waaye nag bu fekkee ne yaakaaru ko fenn jarul muy leb di ci indil boppam ay jafe-jafe ndax lislaam moom du gàll kenn loo xam ne lu mënul la kon foofu la taxawlu di fàttali mbooleem soppe yi nga xam ne dañuy bàyyi xel suñuy waxtaan émission boo xam ne danañ leen ko amal bu ñu génnee ci weeru ramadaan wi ak xat-xat yi ci seen site di waar wi TV di sàkku ñëpp abonné ko rek incha allah di bàyyi xel waxtaan yi nga xam ne moo fi bawoo lépp ñu def ko rek ngir tisaare ci lislaam ak jàngale ci njàngaleem sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa